Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg di ko ñaanal mboolem taalibe yi di ko ñaanal mboolem ñi nga xam ne liggéeyal sëriñ bi rek moo leen ñor ñoo ngi siyaarewaat bu baax mbooloo mi nga xam ne ñoo taxawal lu taaru lii ñoo taxawal lu tedd lii di jël siyaara boobu di ko teg ci loxo suñ Cheikhouna Fall mii nga xam ne yaakaar naa li ñu fi teew ci ñu bari ci moom lañu jaar ba teew ci mbooloo mi kon loolu ñoo ngi sant bu baax di siyaare bu baax sunu jëwriñ sunu suñu sëriñ Jidi Mbàkke mii nga xam ne bokk na ci ñi bàyyi ci waaru sëriñ bi te ab alléeram di alléeru waxtaane sëriñ bi ñoo koy siyaare bu baax te di ko tuubal kàddu yi nga xam ni ñoo koy yëkkati ci kanamam mu mel ni danoo waroon a ñëw rek toog teewlu ba yàlla dogal ni mu ko bëgg a waxee mu waxee ko ni ñun ñëpp ñu ànd yeewi ko waaye nag day defe ne ndigal la rek ndigal moom des koy jëfee mu mel ni ki ñu bëgg a waxtaani muy Sëñ Tuubaa moom daa yaatu lool waaye ku ne ak wet gi nga xam ne lala la taw féexalee nga di ko liggéeyal ci wet googu kon nag jataay bu mel nii jataay bu taaroo nii loolu tawféexi sëriñ bi la ndax ñi toog ci jataay bi sunu borom mënoon leneen xiir ñu nekkaat ci leneen lu dul lii kon bu boobaay loola du leen amal njariñ waaye ñoo ngi sant yàlla ci ginnaaw bi mu xiiree ci li nga xam ne amal nañu njariñ mooy topp sëriñ bi te di ko xeeñ xam naa ne loolu sëriñ ji li dina ci ñëw damay taxawlu fofu rek ci samay kaddu jox señ ji li mu mu mu mu wéyale bismillah barke borom assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyara di baal ñi baax tey baal ñi baax di ñaan suñu borom mu def ñoy julit jullit def ñu ay murid sadiq xiir ngi ci jub te saxal ci ba faaw jàppandalal ñu ngërëmal Serigne Touba def ñuy deug dëgg taalibi Serigne Touba ñu Serigne Touba nangul seen taalibi te gërëm ko boole ci ciy ko ñu ñaanal Cheikh mohamed muntaha sun borom yàggal ko lo te wéral ko ta doon di kàttanam bali naa la dëggeel Serigne Touba mu def ci lu kawe jottam te ànd ko ak mom di ñaan jataay bi yalla bok ci jataay Serigne Touba gërëm bokk ci yi mu gën a gërëm sax ci mbooleem jataay yi nga xam ne taamu na ko gërëm ko dañ ko fay liggéeyal di sant bu baax sëriñ Cheikhouna Fall mi nga xam ne day sunu xarit di sunu wëllëre di sunu mbokkum taalibe noo xam ci moom ak farlu lool ak liggéeyal sëriñ Tuubaa te yàlla rek tax mu ciy sonni guddi ak bëccëg waxtu yu nekk daanaka du noppalu bu ñuy jàllee it ma ci yeneen te yëpp jëm ci sëriñ bi ñu koy ñaanal mbokk mbooleen ñim àndal ci liggéey bi yàlla na seenu may kawe ci sëriñ Tuuba kawe bu kawe seen jot muy góor mu jigéen xam naa sëñ bi moom daanaka mënoon ngaa far àggali rek noonu nga ko waxee sëñ Touba day liggéeykat boo xam ne daa ëpp doole ci liggéeykat yi te li ci ëpp solo ci la moom la ëpp doole mooy ak cofeel ak cofeelam ci rasulullahi sallallahu alayhi wa moom la benn jaam mu sàmm daan na ko wax ci waxinu neex ci xasiida yi dadaa wax ne rabbul aalamiina seet na jamii al aalamiina fekk maa ci gën a sopp xayral mu ne ma cas ne ma tegg ci loxo xayral aalamiina ne ko may naa la kii bi mu ko waxee moom sëñ bi dafa ree daal ne kon man maw xóob laa kuñ mayee laa dañ maa maye daal ne xayral aalamiina bi ma ko rabbul aalamiina mayee damaa woo ba ma ñëw mu ne ma yow mi ma gën a sopp ci mbindeef yi te borom mbindeef yi moo ma ko wax kaay ma jël li ma gënoon a sopp may la ko sëñ nee na ma ne ko liñ la may doo ci gën a sopp mu ne ma làmmiñu arab nee na ma sant yàlla sant ko waaye ma xam ne làmmiñu arab daa woote way te ma gis ci téere bi wa ma allamnaahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ma ne ko dama bëggoon nga may ma may woy nee na rasulullah ne ma may naa la ngay way nee na ma ne ko damaa bëggoon nga may ma boo doon way loo war a way ko may naa la bu ma doon way lu ma war a way nga may ko nee ma sant yàlla sant ko waaye ma xam ne way daa laaj bind ndax buñ ko bind duñ ko mën a jàng te ma gis ci téere bi wala taqutuhu bi yaminika ma ne ko damaa bëggoon nga may ma may bind nee na rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko may naa la ngay bind Sëñ Tuubaa nee na ma ne ko damaa bëggoon nga may ma it boo doon bind loo war a bind ma bind ko mu ma may naa la ma doon bind lu ma war a bind nga bind ko bi sëñ bi lii dafa daal di yëkkati loxoom daal ne kon bu leen sikk ne xalima gi saahir si laa ŋàbbu waaye rasulullahi sallallahu taala alayhi moo téye ca baatin ba moo téye ci baatin ba kon nag li ko may loolu mooy ak cofeel liggéeyam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak cofeel moo ko ci suuf moo tax sax nga dégg ca asiru muy wax ne li ko dal lépp bëgg gi bëgg yenent bi ak di ko tàgg ak di ko lëggéeyal looloo ko ko yóbbee xusóor yi xallat wal ahlu anni tafarraqat li madaxi lladi anhu lmadiu xasiru day mel ne bëgg gi bëgg yenent bi ba di ko lëggéeyal ci tàgg yooyu mu ko doon tàgg lu ko dal looloo ko ko yóbbee moo tax ku koy bëgg moom Sëñ Tuubaa bëgg googu du teggi ni bànneex rek moo la ci war a fekk tey jii ñu ngi daje di waajal bisam bi bis boo xam ne nii maanaam ñun ñëpp wàccaay wi nii rek fi ñu toog kenn koy dangaa sol loo xam ne lu baax la lu rafet di jëfandikoo jëfandikoo yu neex te bëggoo dara jot la te boole boole ci sax boole ci sax suñ xel ci lu nekk lay dem boole ci nu nekk la ñuy boole ci nu nekk lañuy ñuy jëfe Sëñ ak bëgg gi ak liggéey bi da yàlla da cee boolewutoon ñu may ko dara maanaam moom liggéey bii ñuy waajal nun moom ci ni mu ko doon liggéeyee dafa tar koo xam ne mayuñu la nga téen xool ca kaw mayuñu la nga wicc say loxo yor loxoy neen mayuñu la nga dox di geestu mayuñu la sax nga wëlbati ko boole koo dañ lay booleek ay noon yoo xam ne nii duñ xam sa àq waaye seen yitte mooy rocc sag ruux mooy génne la àdduna te it loolu lépp luñ la digal lu dul ak mooy yàlla faaw danga koy def te bu sa xel waxuma la neen de waaye bu sax xel dajee lu dul yàlla nga noonu la doon liggéey liggéey moom Sëñ daa am naar bu ko mas a laaj bu bokk ci xale yu yoon yi danaa koy wax lu bari ko xam yàlla dana la la yéem naar bi da ko laaj ne ko biñ biñ boyalee nag woowu ñu boyaloon jëm ci yow mooy nag wi nga xam dañ koo dañ koo rëccataloon mu jëm ci sëñ bi ngir ngir bëgg koo faagaagal te sëñ bi ne nag wi bi mu ñëwee rek daa daal di naaw jëm kaw daa naar bu ko ma a laaj ne ko ndax nag wi bi mu jëmee ci yow yëgoo dara ci sa xol ci tiitaange sëñ bi ne ko maay jaamu yàlla boo xam ne lu rot ci sama xel lu dul yàlla ma al ko nga xam ne li li koy li koy dal lépp teewul nag xolam yàlla nga koy xool saa bu xalaatee wala xolam xalam lu dul yàlla rek suñu boroom rekki ko loolu lay junj di wax de huwa alladi lam ara gayrahu wala arahu fi cheyin hada wa nawala mooy lépp rek yàlla la ci gis amul dara loo xam ne du ci gis boroomam liggéey la bu metti itam boo xam ne nii metti yu néexut a waxtaane waaye wax gi lim lim ñu war a yóbbe mooy ñu yaru ci xéewali Sëñ Tuubaa yi maanaam ñu yaru ci maa maanaam fi ne ñun bu jëfandikoo xéewal yi yemuñu sax ci jëfandikoo xéewal yi kese waaye duñ ci ànd akub yar sëñ Tuubaa nag ci biir liggéey bi am na foo xam ne am na foo xam ne dafa gëj a jëfandikoo maanaam gëj jëfandikoo dara ba yaramam laaj ko jëmm ji ko mu jënd poti sardin yooyu nga xam ne moom lañ daan jën moo ci nekk mu jëfandiku ci tuuti bi mu ñëwee bëgg a tàmbaliwaat mbind mi te raxasu na def lim war a def nee na mu dégg kàddu guy waxanteeg moom sun borom ne ko wa minhumul ladina yusuna nabiyya mbaa da nga bëgg bok ci ñi ros lor yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu daldi bayyi lola loola dem raxasu wat lu man mu def ko ngir xet gi man dañ ci mom ca la doxé jaayante dootul jëfandikoo ti jën xol teggin yi muy ci diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam teggin yoon jaar ba ag fu kenn xamul na wax ne bama jëm ci yalla damaa dox ba àgg ci kilifa yu màgg ya ñetti kilifa ya gën a màgg nee na bi ma agsee ci ñoom ñu ne ma yow de jàmbaar nga waaye nag bay boo nga yem fii ñu jox la ci liñ ñu jox sëñ bi nee na mën na leen xam naa ne lu baax rekk ngeen ma bëggal waaye dama bëgg ngeen boole ma ki leen jox li ngeen yor maanaam sëñ Tuubaa bët baaree pëstéef baar kawe nee na ñu ne ma dafa am ñetti kuréel yu nekk ci kanam yoo xam ne dañu am katan am sañ-sañ am digalul bu len kenn rombu jalla señ bi neena na ma waaw rek daal di sóobu di dem di dem ba aksi ci kuréel bu ñëkk bi ñu ne ma aksi nga de way fi moy yamukaay bi ndax suñu borom dañu jox katan jox ñu sañ-sañ jox ñu digalul bu len kenn rombu jalla señ bi neena taxawuñ ne suñu borom mi len jox lolu jox na ma katan jox na ma sañ-sañ te jox na ma ndigalul bu la kenn teree agsi waaye nee ma denc sama kàttan denc sama sañ-sañ denc sama ndigal dem ak ñoom ciy teggin dem ak ñoom ciy teggin dem ak ñoom ciy bañ ne ma ay la yéwén mën ngaa jàll nee na ba ma leen jàllee di dem di dem ba agsi ci kuréelu ñaareel bi ñu ne ñu kuréel ba nga jiitu lañ xamul foo ko jaar waaye na xam ne fii mooy yemukaay bi ndax kuréel boobee nga jiitu luñ am ci kàttan ñaarte nañ ko luñ am ci sañ-sañ ñaarte nañ ko te dañ ñoo jox ndigalul bu leen kenn romb jàll sëñ bi neen te xamuñ ne ki leen jox kàttan ak sañ-sañ ak ndigal jox na ma kàttan jox na ma sañ-sañ jox na ma ndigalul bu la kenn telee agsi waaye ma dencaat lépp dem ak ñoom ciy teggin dem ak ñoom ciy teggin dem ak ñoom ciy teggin bañ ne ma ay lay yéwén mën ngaa jàll kuréel ba ca kanam lañ xamul foo ko jaar sëñ bi nee na ba ma koy xuus ba ca kuréelu ñetteel wa ñu ne ma yow day jàmbaar nga lool ndax kuréel yi nga xuus la ak si fii waaye nag fii mooy sab yemukaay ndax ñi nga weesu dañoo ñett te seen kàttan ñett te seen sañ-sañ ba noppi am ndigalul bu leen kenn doomu jàll sëñ bi ne te xamuñ ne ki leen jox loolu jox na ma ko waaye ma den ci yépp dem ak ñoom ciy teggin dem ak ñoom ciy teggin dem ak ñoom ciy teggin ba mujj ñu ne ma yow kenn mën laa teree jàll mën ngaa dem sëñ bi nee na ba ma leen weesoo di do di xuus di xuus ba àgg ci géej goo xam ne kenn mënu koo xuus te kenn mënu koo feey te kama soxla muy muhammadu rasulullahi ma ngi ca wàllaa nee na ma taxaw foofee di ko jóor alquran ak xasida di ko jóor ba yàgg ma ne ko antal karimu anal xadimu dëhran udimu fii kathana yi nee na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daan may sànn seelu burus mooy raas maanaam pont burus daal boo xam ne ci lay jaar nee bama ba nafam ba aksi nee fekk na fa bay tank yépp lépp lu ñuy takkal nit ci ndom ak tank fekk na fa rasulullah sallallahu alayhi Wasallam sallam lépp ngi waxal loo ci soxla ñu defal lako ko ne ma ko man day ben ndom ba tank musuma taxaju a mu ne ma ana lu taxaju mané ko l'islam mi nga xamné ci yow lako sama borom tek la bëgg nga def ma jëwriñ ja ku ko nam ma ñaajati na jaar ci sama kaw nee rasulullah yow daal ne moo tax lislaam ci moomeelam nekk waaye loolu liñ ciy déggee mooy sëñ Tuubaa lim am kàttan ak lim am sañ-sañ ak lépp ci yoonu teggin la jaar kon murit bu bëgg a jariñ ci sëñ Tuubaa ci teggin jaar teggin yooyu maanaam ëpp solo mooy nga xam li lay jariñ ci sëñ bi boo xasee xam ne sëñ bi lépp a ngi ci moom li nga bëgg lépp a ci moom muy texe ak àdduna ak alaaxira léegi yow nooy def ba jot ci nooy def ba jot ci sëñ Tuubaa nag daana wax ne ñu ëpp ci ñiy jëm si ci moom wut si wuñ ci moom lim bëgg ñu wut si ko nee na ñu bari àdduna la ñuy si ñu bari barke la ñuy si ñu bari ñu bari nangam ak nangam la wut si moo tax Sëñ Tuubaa daana wax ne mas naa dajale ay mag ne leen kii nga xam ne fu mu nekk lum ruqe ruqe da ngeen ko fa fekk bu ëllëgee yowmal xiyaam dees na leen laaj ana lu taxoon ngeen di ko fekk foofu te bu boobaa lu ngeen wax lu dul ay teggiin du leen jariñ dara. kon ku ko ci am na ko wuti ku ko ku ko ci am na ko téye bu baax ku ko amul na ko wuti kon teggin mooy li nga xam ne moo ñuy jariñ ci suñu diggante ak Sëñ Tuubaa mooy tax ñu jariñu ci moom moo tax dadaa wax ne sama kër gi du pay daara la man mii du ma ab buur ab sëriñ laa yéen du ngeen ay jaam ay donga ngeen mooy kër gi wutukaayu yàlla la man kuy yar nit ñi ci yoonu yàlla laa yéen ñuy wut yàlla ngeen war a doon yéen ñuy wut yàlla ngeen war a doon daana wax ne daan na wax ne kër gi yar bi ku fi jële yar bi bàyyi fi dara ku fi bàyyi yar yar bi jëlee woo fi dara boobu la taxoon mu di ko wax mooy nit ñi bari na ñoo xam dañ naan ñëw ñetti fan wala diir bu gàtt ñoo am ko ci kër gi delluwaat mbooloo topp leen mel ne loñ nekk day dara te fekk suñ bëgg leen a wax ne lu fi waay jëlee lu lum rëy rëy ba nit ñi di ko naw loola du dara li fi waay di jëlee mu doon dara mooy teggin mooy ab yar moo tax daan na wax ne doom yi ngeen may tuddal yaral ma leen moo ma ko gënal nga xam ne tudde ko doom nee nag nga yaral ko nit ki maanaam sa doom nga yaral ko ko nee na moo ko gënal nga tudde ko ko moo tax dafa bëggoon nit ñi amub yar lool moo tax daana wax ne kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamoo fiddatin wala jamoo dahab bokk na ci li muy denc te mooy ngën gi lu ñuy denc mooy ay teggin nee na bokk na ci li gën a foor ci moom mu di ko denc mooy ay teggin kon teggin yooyu nañ fexewaat ba bu ñu ko kenn ëppale bu ñu bu ñu ko kenn ëppale àdduna na kum tax a ci sëñ Tuubaa saaboo tàmbalee mos àdduna tàmbalee beew adduna kum tax a jóg saa boo tàmbalee mos adduna tàmbalee te sëñ bi ko am fulla la waxuma ñun ñi waaye biir njaareem sëñ Habibullahi Mbàkke imaam nee na sëñ Tuubaa jàkkaarloo na fa ay nit ñoo xam ne ñu ngi ci biir kër ga ne leen yéen ñii fii ci àdduna laay mujj a teganteeg yéen bët daan leen ndax li leen tax a jóg ak li ma tax a jóg bokkul ne leen àdduna dees na ko misaal ci àllaaxira waaye dañoo wuute daan ne leen àdduna daraja joo mën a am ku la bëgg a gis bu defee yitte ci gis la balaa yàgg mu gis la ëllëg yowmal xiyaam nag ña bokkoon luñ daan def képp fay gisante te man fa may nekk defu leen lu leen fay indi yéen fa may nekk fa ngeen nekk defuma ma lu mu fay indi te loolu ñu nekkoon ci biir kër gi la ko la ko loolu kon limi tektale moy baña woru waru ndax dund ben yoon lay am to ko dem doto delsi Manam baña woru waru waru ku ko def ba dem jeexna te seigne touba moy suñu muccu kay bo xamne kom raw jeex te ku am ful na ci bopam la manam xewali man na la jox waye nak batinam mom du ko gawa joxe mu newon ku ne fi man ngir kom mi ak sahir si ma jox lo yooyu sama batin delsi. moy li nga soxla mu jox lako ko nak batinam mom daf koy moo tax ku bëgg a jariñu ci moom il faut nga jéema a ubbi sa sa ubbi sa ruu ray sa bakkan fexe ba sa xol di connecté wu ci sëñ Tuubaa dëgg-dëgg waaye li fekk loolu amul riir mi rek moo la yóbbaale ba sa dund jeex gis sëñ Tuubaa jafe la yàlla nañ ci yàlla musal loolu nag li ñu koy may mooy ñu xool sëñ bi xool lim ñu andil ñu jéem koo jël dund ko maanaam ba ñu jàpp ne sëñ tubaa lu ñuy barkee nii rek nga xam da nga koy wax rek sëñ tubaa sëñ mu jeex nga jóg dem léegi da war a jël sa yoonu bopp nga xool ne man mii ne jox naa sëñ tubaa sama bopp sama dund gi ana lan laa ci sukkandiku ci njàngaleem sëñ tubaa loolu moo jox sëñ tubaa sa bopp waaye su fekkente ne yow na ngay soloo na ngay waxe na ngay doxe li ngay lekk li ngay naan ba ci sëb liggéey amul loo ci sukkandikoo ci njàngaleem sëñ tubaa ba noppi ne jox naa sëñ tubaa sama bopp loolu loolu ak waru lay indi loolu ak waru lay indi sëñ Touba gis nga tukki bii ñuy wax li muy rëy rëy rëy tubaab yi woo nañ ko ay yoon yoon sëñ mi nanguwut a dem te lan moo tax nanguwut a dem mooy daa jotul ndigal mooy kon lu metti metti moom ndigal lay xaar nga xam ne mënoon nañoo tas daaraam jëpp rey njaboot gépp waaye sëñ Touba lu dul maanaam ak lu metti metti du def dara te rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndigalu ko ñun ndax ñi ngi jëfandikoo ndigalu sëñ Touba am dañoo nekk ci biir noonu rek nekk ci bëgg sëñ Touba gi loolu tam kenn ku ne war na cee góor góorlu ndax sëñ moom fi ne ñun ñëpp xam ak baaxam ñun ñëpp xam ne njariñu àdduna ak àllaaxira mi ngi ci sëñ Tuubaa waaye léegi nag ñun fuñ toll ci loolu ndax am nañuy cër ci jëmmi sëñ Tuubaa ji waaw wala déet foofu la liggéey bi nekk dégg dëgg dëgg dëgg nag ndax bari waa na ci sama classe gi ñoo xam ne seenu bëgg sëñ Tuubaa dañ koy wax rek waaye amul lu koy mandargaal te sëñ Tuubaa da daa wax ne seen baaxuk sëriñ nañ koy xamee ci seeni jëf te buñ koy xamee ci seeni wax ñun ñoo koy xewloo kon ñun lenn rek mooñ ci war mooy yaru ak teggiinu ci biir xéwali Sëñ Tuubaa yooyu kon loolu nañ ci gën a góor góorgóorluwaat ñi ngi daaneel foofu suñ kàddu di di di di ñaan ñu gën a bàyyi xel bis bi bàyyi gi xel mooy ñun ñi dëkk Touba ak ñii ñëw ñun ñi dëkk Touba loolu sëñ Ibrahima waxoon dañoo am tawféexi dëkk ak sëñ Touba di ko dalalal ay ganam waaye nañ mat sëñ nañ jéem a mat sëñ Tuubaa ay dëkkandoo maanaam am na ñoo xam ne bu màggal gi ñëw bu màggal gi ñëw ñoom ña dëkkul Tuubaa nañuy mel nañuy mel noona lañuy bëgg a mel ngir waajale ko bisu sëñ Tuubaa bi <laughs> loolu mooy ñàkk xam dëgg dëgg dëgg dëgg ngi ku dëkk Tuubaa li ngay sagale sëñ bi mooy mooy ku ñëw ci yow bu delloo na gën a bëgg yàlla na gën a bëgg sëñ Tuubaa na gën a wormaal sëñ Tuubaa waaye amaa bari na ñoo xam ne ku dalak ñoom boo delloo bu ëllëgee booy ñëw lu ñu doon tere Touba di nga ko def ngir ki nga dalal loolu nag ku ko def tooñ nga Sëñ kenn ku ne it bàyyi xel màggal gi bañ cee xeeb boppam ndax fi ne am na ñuy nekk tuubaa ba màggal gi jàll te màggaluñ loolu moom nekk màkk te aju màkkaayam fi ne bari na ñu dëkk màkk ba màkk ba aj gi jeex te duñ aj kooku am taxul yoolu aj nga am ko taxul aj wàcc la. naka noonu bari waa na ku dëkk Touba ba màggal gi jàll te eh, te màggaloo li ko waral mooy màggal gi daa am lu sëñ bi tudd ne mooy màggal gi loolu nag fii ne bari na ñoo xam ne jàpp nañu ñoom wàcc na leen te sëñ bi dane lu dale ci ganaar ba ci gëléem lu ci waaye am na ma ci santle sama borom bul ci xeeb ganaar bul ci naw gëléem loo ci def rek na nga xam ne sant la nga ko suñu borom def nga lim la digal nee na woon it boo ko mënut suñ xam yi boo ko na suñ tubaab dane woon ku mënut loolu nga xam ne amu ci dara na fekk ku defar ay xéewalam ba mu àgg nee na nga dem xéewlu ca te ànd ca ak pëstéef pëstéef bi mooy nga fas ci sant li sëñ Tuubaa boroomam ci xéewalu gi may xéewlu nee na bu boobaa it boo ko defee yaag ñi ko ci def yéen a yem lim ci amee bu ëllëgee da ngeen ko bokk xoolal xéewal googu loolu nag bu ci kenn sàggan bu ci kenn des ginnaaw nag ku ne fexee sant la sëñ Tuubaa boroomam am na loo xam sëñ Moustapha Salih moo ko nettali nee na sëñ bi bi muy digle màggal gi ku ñu sëñ Mor Mbàkke da ko ko wool ma sëñ mat jaw paxa nga xam ne boobu sëñ bi daa baddi aw sàkket sax daal di génn fekk ko mu toog di bind mu ne ko wool ma ko ba mu ko woowee ba mu ñëwee mu ne ko sëñ bi nee na lépp sëñ baa ngi taxaw di ko di ko xaar bi ma ñëwee maa ngi sëñ bi taxaw jàpp ci bant yi bantu néeg bi nii nee na mu ne sëñ ma jaw paxa demal wool ma bàlle fayli jan mor bàlla la ko daa wax bi mu ñëwee sëñ bi ne ko sama bis boobu di fukki fan ak juróom-ñett laa bëgg ngeen fonk ko te digal fere yi ñu fonk daanaka lépp lu ma am ci sama borom ci bis boobu laa ko amee yéen lu ngeen am ci man ci bis boobu ngeen ko amee daanaka buñ ci àggee ku ci am looy lottal ba koy lottal boo taxawee ba lottal ko ba noppi na nga wax ca kaw ne Ahmadou Bamba wax nga dëgg la nga bëggoon am nga ko tubaab bi fen nga la nga bëggoon amoo ko lii sëñ Moussa Sall moo ko nekk neen sëñ tubaab noonu la ko waxee. mooy seere ne sunu borom lam bëggoon am na ko seytaane gàccewu na ihyaau kalimatillahi al ulya seytaane lu mu bëggoon mooy nit ñi bañ a sant yàlla sunu borom lu mu ko waxoon am naa jaam ñoo xam ne doo mënoo leen tee sant seytaane fi mu ne ku xam yàlla la te kenn mës a gis mu weddi ko fi ne seytaane doo gis fu ñu ne la daa weddi yàlla moo tax daa xam li gën li yàlla gën a bëgg moo tax néewul yàlla danaa fexe ba nit ñi duñ julli wax ko loolu néew ko danaa fexe ba duñ woor néew ko danaa fexe ba duñ aj dana ko danaa fexe ba duñ la sant la aqudanna lahum siraataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim wala tajidu aktharahum shakirin danaa fexe ba duñ doon ñu lay sant suñ borom ne ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan sama dëgg-dëgg jaam ña doo man ci ñoom dara seytaan mel ne ne loolu da doon am ndam ba suñ borom di wax ne sax qalilun min ibadiya shakur ñu néew ci sama jaam ñi ñoo may sant moo tax sëñ bi bi mu jógee di liggéey lam njëkk a bind mooy inna ibadi laysa laka alayhi sultaanu ay yasta minni llahu inda jeewali iblisa isnadaytuhu bi yaawali wane ne seytaane dana am gàcc ndax liggéey bi bu àggee la seytaane ne woon du am loola laay woote moo tax benn bis bu yàlla moom lañ xam ci àdduna muy bisu màggal Tuuba yàlla nañ ci suñu borom defal tawfiq asalaamaaleykum wa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 كل ساي وفي ذبر هماني ألا ماهن ما أبصر السفر